pour que anti système ñu mën a ñëw tegu ci suñu bopp réew mi mais bu ñëwee gisaat les mêmes pratique mm. ou les prémices des mêmes pratiques bu boobaa ñun war nañ posé ay interrogations. maa maa ngi ñëwaat wax ci li nga xamante moom mooy mhm. jàpp na ne a foofu la war a dooree parce ci rapport euh, tudd euh, a li nga xamante moom mooy euh, fexe ba yoon daf liggéeyam ngir ñu mën a mu bañ am une justice bi nga xamante ni justice double vitesse lay doon mais également gis nañu le président de la république bi nga xamante moom mooy moom mu ngi continuer di dëggal li nga xamante moom moo di Mauritanie dem fi nga xamante ni moo di Gambie ce matin mu ngi woon fi nga xamante moom moo di Guinée Bissau loolu yëpp dafay dëggal li nga xamante moom moo di rapprochement ak amitié ak coopération bi nga xamante ni dox na diggante Sénégal ak li nga xamante moom moo di réew Afrique yi surtout ñi waaw effectivement donc euh, président Bassirou Diomaye euh, tournée yi nga xamante ni mu ngi koy def dans la sous-région euh, day doon mbir moo xamante dañ koy rafetlu c'est une pratique boo xam di dugg en droite ligne par rapport aussi li nga xamante ni dige woon na ko parce que moom moo woote intégration africaine mhm. donc mënoo wax intégration africaine wax panafricanisme te doo commencer ñi nga mhm. xamante ni say dëkkandoo mhm. donc le bon voisinage dafa bëgg donc nga même boo taxoo si koñ nga génn dem nemmee ko waa koñ bi yëgal leen ni ñëw nga et vraiment voilà tu es prêt à jouer pleinement ton rôle donc mm. c'est tout à fait normal mais au aussi bu ñu xoolee Guinée-Bissau dafa doon euh, pays limitrophe bi nga xamante ni euh, dafa am solo trop par rapport ak kaaraange Sénégal mm-hmm. parce que on voit on on a une zone dans le sud ñu koy woy la Casamance mm-hmm. bi nga xamante ni quand même une zone à mm-hmm. donc euh, gis nañu euh, les forces yoo nga xam ne ñu ngi appartenir MFDC parfois dañuy am ay ay yëngu-yëngu wala def ay ay yenn mbir yi nga xamante ni parfois day dal si soldats sénégalais wala si population yi tout simplement parfois aussi jafe-jafe am ba nga gis ne dañuy jéggi frontière euh, dugg biir Guinée Bissau donc ça veut dire que dañu war a am ay action yi nga xamante ni bien corrélées euh, action yi nga xamante ni day doon euh, de façon harmonieuse entre l' état du Sénégal et état bi nga xamante ni mooy Guinée Bissau ba nga xamante ni donc dinañu mën a xeex donc lépp si wàllu kaaraange ba ñaari dëkk yi mën a nekk si jàmm mm-hmm. encore une fois comme li Adama Barrow waxoon président Bassirou Diomaye ne ko Gambie su nekkul ci jàmm Sénégal lu nekk ci jàmm mm-hmm. effectivement Gambie ci biir Sénégal donc euh, en tout cas bon c'est c'est un état à part mm-hmm. mais euh, géographiquement Gambie dafa nekk si dëgg Sénégal donc muy doon li nga mm-hmm. xamante ni day day day valable encore côté Guinée-Bissau parce que bu ñu sécuriser wul ensemble suñuy frontières donc euh, il peut y avoir quand même des problèmes d'ordre sécuritaire yoo xam mën na poser wu te mën na indi encore une fois ay ay jafe-jafe ci ñun ak ci ñoom y a lutte aussi euh, pour euh, contre li nga xamante ni mooy mooy trafic euh, voilà donc euh, de chanvre indien drogue bi di transhumé nu mu tudd di jaar jaune yooyu yëpp mm. gis nañ ko seen plaque tournante donc euh, si wàllu si wàllu cocaïne et cetera donc laaj na tamit ñu mën a lëkkaloo ba nga xamante ni dinañu mën a euh, relever les défis là ensemble. Mm-hmm. day doon lu ñu rafetlu et puis c'est une tradition aussi bi nga xamante ni président Macky Sall aussi euh, bi mu bi mu fi nekkee jotoon na ko suuxat quand entre le Sénégal e la Guinée-Bissau. et aujourd'hui euh, son successeur ba président Bassirou Diomaye. continuer si donc day doon li ñu rafetlu. Mm-hmm. léegi nag par rapport ak nomination suñu invité wax na euh, dëgg parce que tamit benn côté mhm. euh, ay nomination ñoom ñoo jotoon a wax ne ni bu ñuy def ay nomination mhm. si certains postes bon je pense qu'il di certains aussi ne di pas tous les postes mhm. bon dama xamul donc moo tax en fait wax bi il faut que ñu circonscrire ko ñoom ba mu leer pas ñun ñoom ñoo ko war a leeral ba mu leer ci sénégalais yi donc ñu xam yan postes yi nga xamante ni la dégg ne la ñu yaakaar ne wala la ñu promettre sénégalais que dinañ ko euh, dugal ci li nga xamante ne mooy appel à candidature ba nga xamante ni sénégalais lambda bi nga xamante ni mu ngi fii bu amee les compétences requises am euh, nu mu tudd les diplômes et tout donc am tamit probité morale et intellectuelle bi nga xamante ne laaj na ko mu mën a postuler naturellement ñu buñ ko bu bu bu nekkee moo war a moo moo mérito jël poste ñu jox ko poste quel que soit na léegi boor politique bu mu bokk mu bokk gëm sa bopp wala mu bokk passif wala mu bokk feneen hmm. war na mën a euh, soumissionner déposer candidature am ba nga xamante ni moom la ñu war moo tax comité gouvernement bi foog mu communiquer par rapport ak li xew donc c' très important ñu leeral sénégalais lan moo tax appel à candidature amul léegi nag euh, li si des c'est de spéculation li ñu mën a def mooy est ce que parce que tey aujourd'hui y pas de texte yi nga xamante ni ñoo régir euh, li nga xamante ni mooy euh, appel à candidature yooyu noonu mosuñu ko wax fenn donc dañoo ne le président il nomme au poste civil et militaire mm-hmm. pour le moment waxaguñu ne président dafa war a euh, par rapport ak nu mu tudd canevas yi mu war a aw mm-hmm. am na appel à candidature bu mu war def am déet ñoom ñoo ko proposé mm-hmm. donc ñoo ko proposé mais est-ce que peut-être ils attendent de pouvoir mettre ça en place c'est de la c'est de la spéculation encore une rafet rek peut-être spéculation bi ban fan lay porter mooy peut-être dañu bëgg d'abord mu dugg dans les textes législatifs ba nga xamante ni day day doon lu ñu consacré ba nga xamante ni ça peut s'imposer ñu xam ne c'est une procédure mm-hmm. comme si tu mettais en place euh, un processus qualité management par la qualité et cetera ba nga xamante ni day leer ñu xam ne recrutement wala nomination bu waree am si poste nii ak nii ak nii voici les différentes procédures à suivre donc pour ñu mën ko suivre mais malheureusement loolu amul tôt. Mhm. c'est tôt léegi nag l'opposition il n'est jamais tôt il n'est jamais tôt ni trop tard pour l'opposition parce que oh, c'est c'est moi je considère que Gëm sa bopp ils sont dans l'opposition mhm. donc c'est tout à fait naturel qu'ils euh, voilà qu'ils euh, qu'ils prennent position par rapport ak yenn dossiers yi. Mhm. mais à ce jour on peut pas. aussi euh, passation yi mu ngi jeex il y a deux semaines il y a des audits qui ont été demandés par le président de la République qui mm. sont en cours léegi les rapports il a des rapports qui sont sortis mais c'est des rapports de l'OFNAC mm. rapport euh, rapport IGE pour le moment euh, bon voilà kenn xamul fan la tool mm. donc mënuñu ne diw def na wala deful wala kii bon li ñu am aujourd'hui pour ñenn ñi ñi nga xamante ni ñu ngi koy dégg dañu ne c'est des c'est des soupçons jusqu'à preuve du euh, euh, tamit nu mu tudd amul benn décision de justice bu ne diw moo def wala wala deful Mhm. donc mënuñu tamit sukkandiku si loolu rek pour écarter aussi écarter aussi des gens donc dañuy xaar mhm. machine judiciaire bi def la mu war a def ba pare aussi au delà dañu dañu woote aussi séparation du pouvoir c'est pas parce que président Ousmane Sonko euh, le premier Ousmane Sonko newoon na ni mhm. xam na Mamour Diallo l'affaire des 94 milliards extra fu mu ko dugal mu jékki-jékki rek tànn donc au nom de la séparation de pouvoir il peut pas donc moom tamit cheminer si si si noonu parce que day doon singale lay doon su yàggee mm-hmm. donc euh, encore une fois c'est la justice qui devra faire son travail et effectivement s'il y a des rapports qui existent mm-hmm. euh, et que laaj na justice dem euh, enquête topp li mu war a topp ba xam kan moo def ak ku deful ñu mën ñu mën ko def mais encore une fois à vingt huit jours euh, d' exercice pense que teel na euh, euh, ko est ce que tey li nga xamante ni moom moo di coalition gëm sa bopp mu ngi wax ne yéen a ngi ci opposition mais est ce que tey ñun mën nañu jàpp ne yéen a ngi ci opposition parce que mënu leen a xeex Macky Sall ba mu jógee fii ngeen doon xaar li nga xamante ni moom moo di rupture ngeen doon xeex anti système ki ñi nga xamante ñëw nañu au pouvoir tey a bokk bokkoon même li ngeen doon xeex muy muy muy muy système bi est-ce que tey euh, da ngeen di positionné waat comme en tant que opposant wala da ngeen leen di jàppale ci li nga xamante ni moom moo di moom moo di liggéey bi est-ce que également jàpp ngeen na ñoom ba ñu toogeeg léegi euh, rupture bi nga xamante ni ñu ngi doon doon xaar ci ci ñoom est-ce que am na ci ay actes yoo xam ne posé gum nañ ko dans le sens de de de cette rupture là. non c'est-à-dire tey euh, il faut que ñu rappeler que hmm. la chute de Macky Sall. Macky Sall daanuwul ci benn jour hmm. daanoom processus la. mi ngi arrivé à terme le vingt cinq février mm. léegi ci daanu boobu mu daanu noonu ou bien le vingt cinq mars ci daanu boobu mu daanu noonu mais plusieurs acteurs dañ ci jouer seen partition mm-hmm. processus la boo xam dafa tàmbali mm-hmm. depuis opposition bi existé mm-hmm. le Dias joué na ci partition xalifa Sall joué na ci partition euh, Karim Wade joué na ci partition mais à l'arrivée président Bougane daf ci jouer partition bu tànk tiñal mag yi dem ci le Sénégal des profondeurs def son rôle de sensibilisation son rôle de conscientisation des masses déployer ay moyens dimbali askan bi et cetera et cetera quand il s'agit même des contrats yi nga xam ni c'est des contrats léoniens yi nga xam dañ ko signé te arrangé wul askan bi le président Bougane dafay sol dàllam dem ba ci site wax sénégalais ne lii lii moom mooy ressources yi mais ressources yi nii la demee pàccoo nañ ko pàccoo boo xam ne arrangé wul askan bi ba de Sénégal daf ko parcourir d'est en ouest du nord au sud wax ak sénégalais wax ak askan bi bi ñu demee bokkuñ ci course bi mais dañ wax ni il faut soutenir l'opposition excepté Macky Sall et ci loolu aussi bi ñu soutenir opposition ñun au niveau de Gëm sa Bopp on a l'opposition parce que nous sommes des antisystèmes. Mais, pas clair parce que Bougane déclaré wul waxul il attendait peut-être un second tour pour mu mën a positionné wu wala mu wax exactement fan la fan la fare est-ce que nekkul clair clair obscur boobu noonu moom moo tax tey euh, xëy na euh, bokku leen sax ci ñi nga xamante nii mënoon nañoo ànd ak euh, le président ci ci gouvernement c'est-à-dire dafa am loo xam ni il faut que ñun sénégalais yi ñu accepter di waxante dëgg. gis nga déterminisme social. bi am nii dafa dem ba nit pour mu wax dëgg sa problème la. yow da ngay ut ay vues ngay wër mm-hmm. wala ku lay apprécier wala ku lay mm-hmm. caresser dans le sens du poil mm-hmm. vous comprenez ce que je veux dire dañuy gis ñoo xam ni sax dëgg ji day nekk nii ñu aw fay wax lee pour lu neex ñee parce que soi-disant am na une majorité boo xam ni c'est une majorité boo xam day